xibaar yi ak Ibou Diouf aywa xibaar yi ci yaatal dañ koy tàmbalee ak diggante Sénégal ak Gambie ñetti bal ci dara mu mel ne doomu Sénégal yi daal euh, euh, dóor nañu euh, waa Gambie. waaw mu nekkoon ndorteel bu neex soxna Fati <laughs> gannaaw ndam li nga xamante ne am nañ ko diggante waa Gambie benn ñetti bal ci dara. Hmm. mu nekkoon match boo xamante ne dañ ko doon xaarandi ndax dañu jàpp ne derby su régional la. Maam Fatou Ndoye ak Bisaan Ndoye euh, ñoo ñu fa toogal. tàmbali bu mucc ayib pour gaynde yi Pape Gueye joxe ton bi ci frappe bu rafet gannaaw passe décisive bu Sadio Mané ubbi caax yi ci quatrième minute bi. Lions yi nag ak seen dispositif 3-4-3 ak Abdou Diallo boo xam ne dafa polyvalent wane sérieux ak application. seen adversaire di gambi réagir gannaaw 15 minutes yu njëkk yi. scorpion yi am nañu sax ay coup de pied arrêté yoo xam ne exploité wuñ ko ni mu waree ci 35e minute bi Ismaïla Sarr am occasion def le break waaye Baboucar Gueye gardien gambien bi def arrêt bu rafet mu am nag fait de jeu bu am solo expulsion ci njeexitalu première période bi bu Ebou Adams défenseur gambien bu def tacle mal maîtrisé si Lamine Camara. On savait que c'était un match euh, compliqué parce que les matchs euh, ici en Afrique sont très concentré et c'était l'objectif. Honnêtement, c'est pas facile. Je pense que c'est dommage parce que quand euh, dafa doon loo xamante ni àdduna ñëpp a ko seetaan après boo buggee am qualité je pense que il faut que ñu arrêter du jouer à 14 je pense que 18 heures vingt heures tout ça c'est possible parce que non seulement doo am li nga bëgg te ba pare naaj bi dafa dafa tàng je pense que lii aussi nous on voulait jouer jusqu'au bout. ces genres de premiers matchs euh, si naaj bi je pense que c'est difficile parce que ça prend trop trop trop d'énergie et je pense c'est dommage si bu ñu bëggee am qualité je pense que CAF dafa war a xoolaat seen planning match yi quoi. je pense être prêt physiquement euh, l'importance après c'est que l'équipe l'équipe euh, voilà ait, ait gagné ce match et après moi ma personnellement bon je me tiens prêt que je sois sur le banc ou Bah, que je rentre ou que je titulaire, je vais toujours me donner à, Lamine Camara mooy nekk joueur seconde période bi gannaaw paasu Ismaïla Sarr milieu de terrain bi croisé frappam dugal ñaareelu but bu Sénégal monte ci simili yu ko jiitu Edouard Mendy def na tamit arrêt bu décisif looloo waral sax Gambien yi mënuñoo égaliser Sénégal à onze am emprise ci rencontre bi. donte Gambien yi mosuñoo nangu bàyyi waaye lu waay mën ci kanamu talent bu mel ni Lamine kamara bi nga xamante ni mooy sele sooru rencontre bi gannaaw benn superbe enroulé bu muy def ci quatre-vingt-sixième minute bi. que d'abord match de football la voilà te match de football rek la mën a doon mënul doon leneen lu dul football et je crois que tey yàlla bu defee ni que ñoom seen liggéey mooy seen passion ba am opportunité jouer genre match yi je pense que c'est important que wu ci genre match yi parce que. du ay moment yoo xam ne ay moment yu yu ñëw tout le temps ci carrière u joueur la maintenant nag pression bi réyoon na trop parce que Gambie suñu suñu naataangoo nañu suñu famille nañu Sénégal bi nañu wax donc euh, ñuy dédier vraiment victoire bi sénégalais yëpp yu nekk Gambie. sortem nag bu njëkk Sénégal wane ndëgër lay wane ni mooy champion d'Afrique gannaaw bu mu dóoree Gambie ñetti bal ci dara. Euh, Mame Fatou Ndoye euh, Ibou ñu desandi ak euh, match boobee mu mel ne sax doomi Gàmbi yi wax nañu itam nee ñu daal dañ def seen kem kàttan ba fàtte li nekk seen gannaaw te jublu li nekk seen kanam. waaw nee nañ gis nañu match bi metti woon na te loole nag ci njeexital bi ñu jëlee ci ab défaite waaye daal jamono ji mobiliser woon nañu fas yéene rek. Mhm. seen diggante ak Guinée ñu am ci ndam wala résultat bu baax dañuy teewlu. Euh, footballeur yooyu ci micro Mamadou Ndiaye. waaw match bi métti woon na mais si ñaari ñaari côté yëpp métti woon na mais après bu ñu jëlee carton rouge bi loolu dafa yàq match mais bu bëgguma jël alabay daal euh, def nañ luñ man mais après dañ dañ dañ luus match bi. non fu ne dañ dañ si jàngee lu bari parce que football euh, ñun dañ préparé pour ñëw gagner mais gagner woon ñu ñu ñu luus match bi. loolu dafa tax léegi ñu ñu delluwaat suñ terrain bi après ñu préparer yeneen match yi. match bi euh, nii la mu demee euh, foog naa ne dem war a concentrer si game bu nekk suñ kanam because Sénégal euh, defending champion leen so play ak pour ak yi du yomb noonu because den am qualité yu bëri so waaw lii laa na a woo waaw naa woon seen équipe bi baax na trop nu gars yi play tey foog naa ne team gars suñ ak ni team yi yëpp dina difficile si kaw team yi because the way they play is ñu jóge Côte d'Ivoire ñëw fii ci Ndakaaru dem ba ca diwaanu yow foofe nag amaloon nañ fa ab fan zone fexe ba ñi nga xamante ñooy supporters yi ñu mën a tase ci béréb bi foofu ca place Mamadou Diop ngir seetaan euh, match boobee dañuy dugaat ci ambiance bi ànd ceeg Pape Fara Gning ak Modou Diop. ñu daje ñoom ñëpp ci rond point bu yoof ñi nga xam ne ñooy jaar di dem ak ñenn ñoo xam ne supporteru Sénégal la te gëmewuñ ko naam naaj bi tàng na jël ñu ngi taxaw nag puus gaynde yi ba ñu am ndam seen diggante Gambie bi barab bi sifflé fee nag supporter yi kontaan lool ci ni gaynde yi doxalee. marqué trop tôt dès les premières nga dugal wane na ne yow yaay champion amatuma lu may tiit moom laa doon wax kii léegi quoi parce que équipe boo ko mënee da koy dóor quoi. troisième bii bu Sénégal bi nag xam ne Lamine kamara fa mu ko dugal ñëpp daal di tëb loolu nag tax ñu ne gone gii am na avenir bu rëy ci équipe bi. Lamine Camara moom. Lamine Camara moom ah doon na la. Lam Lamine dafa kay dafa Iliman dafa dugg rek. Paan Lamine Camara Lamine Camara dugal. wax dëgg yàlla neex na lool di ñaanal Sénégal yàlla jox la comme ni nga woon. waaw incha allah rabi loolu la leen di ñaan Lamine Camara zor yu bees ak ñoom ñëpp ñu def seen liggéey ñu mu waree yéen ñaanal yàlla yàlla defal leen ndam seddu guy ñu ko Sénégal li moom naa si loolu wax dëgg yàlla ñetti bal ci dara bi ñu am ci kaw Gambie tax supporters yi na nañu defoon gagné woon coupe bi dañuy defaat ren vive douzième ah. ne Sénégal joueur yëpp macha allah zéro faute man moom vraiment kontaan naa trop ñuy ñaan yàlla niñ ko tàmbalee nii si bisimilah bisimilah rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggal si alhamdulilahi rabbil alamin man damay ñaan Sénégal na na xool yëpp doon benn gi nga Sénégal bu xool yëpp doonee benn billaahi ko bi day ñëwaat naam naaj bi tàngoon na lool ñi di supporters yi nag taxaw ñu puus naataangoo Sadio Mané yi ngir nag ñu daal di am ndam te nee nañ Sénégal bu wéyee di doxalee nii ci groupe bi dina gañe ñëpp daal di jël paie te groupe bi sax la ñu waxoon groupe de la mort. Pafara ñi nga fii ci Sénégal la ñuy desandi Coupe d'Afrique yi nag ñu ne am nañu jël ay matuwaay ngir fexe bi ñi nga xamante ne ñooy supporters yi. ñu mën a seetaan li nga xamante ne mooy match yu gaynde yi bokk na ci ñooñee lekkool yi ngir fexe rek ngir enseignants yi ak seen i élèves moment yi nga xamante ni ñu ngi amal euh, match bi ñu mën a dem rek seetaani yi loolu nag euh, bëri na ci tout tànk yi ñoo xamante ne ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. ñu jeexale ak résultat yi Cameroun ak euh, Guinée ñoom ndam demul ndam dikkul ku ci nekk benn bit la dugal l'Algérie Algérie ak Angola nag noonu ku ci nekk benn bi nga dugal Burkina Faso nag tey lay laale ak suñu mbokku mauritanien yi 14 heures lay doon. Euh, waa Tunisie ñoom dinañ laale ak euh, Namibie 17h GMT Mali Afrique du Sud di beneen match bu ñuy xaarandi boobu moom 20h euh, lañ ko fas yéene programmé wala sax lañ ko programmé soxna Fati. aywa ñu wax itam ci mbiram 3 milliards billets noirs yooyu mu mel ne commissariat d' arrondissement bu Diamaguène Sicap Mbao defeere na rek chef religieux bi ak ñamu àndaloon. waaw muy loo xamante ne lu yees la aju rek ci mbiru 3 milliards billets noir yooyu. Euh, ñu ne nag imaam bi ak ñetti wala sax ñaari àndandoom euh, jot nañ leen rek yóbbu fi nga xamante ne mooy ndugg siin gannaaw bañ leen di toppane dañu yoroon lu toll ci ñetti milliards ci suñu xaalis ci ay billets yoo xamante ne dañ ko doon na si pexe rek ngir mën ko raxas ñu ne nag euh, gannaaw ab blanquette ñu jàpp ne seen loxo daal laale na ci mbir moom bu baax a baax moo waral nag jamono ji ñoom yóbbu nañ leen rek fi nga xamante ne mooy kaso ngir mën a wéyal l'enquête bi ñu jeexale ko ak euh, ñi nga xamante ne moo aju rek ci candidat yi demoon fi nga xamante ne mooy euh, Union européenne yu aju rek ci euh, liñ leen rakkale woon ci parenage bi ngir ñu mën a bokk ci élection palum jitu réew mi ñu ne nag xeex bi moom dañ koy yóbbu daanaka benn dimension internationale ngir fexe rek ba ñooñe dugal seen loxo ñoom nag bañ fa àggee rek jot nañu porter plainte contre X Aminata Mbaare Sow àndoon délégation bi nga xam ni jot nañ leen dalal ci délégation Union européenne mi nekk fii ci Ndakaaru liñ fa waxtaanee nag mooy question parrainage bi ndaxte ñoom jàpp nañ ne li xew ci biir leerul ci seeni bopp. dañu ñëwoon juste pour yëgal leen ñoom partenaire Sénégal muy Union européenne parce que France mu ngi fi woon Allemagne mu ngi fi woon Italie Luxembourg euh, Pologne. ak yeneen nation européenne yoo xam ne dañu jël seen xaalis dugal ko ci biir fichier électoral bi ngir ñu càpparoon. collectif bi am lu toll ci 43 candidats ne ñii di waa Union européenne nañu dugal seen loxo waaye tamit liñ bët fichier bi nga xam ni moom la ñu nekk di liggéey ngir waajal élection yi le problème numéro des élections mooy le fichier kenn xamul ban fichier la est-ce que fichier 2017 la ñu jox ñenn ñi est-ce que ñeneen ñi fichier 2023 lañ leen jox ndax quand même. Euh, loo xam ne lii dañu yor carte d'identité wu électeurs yi ngeen naan newuñ ci fichier bi loolu kenn mësu ko gis. bu weesoo seen ñëw gi ci délégation de l'Union européenne fii ci Sénégal fas nañu yéene déposer à plainte contre X. porté nañu sax ñun ñëpp plainte contre X pour ñu xam ñan ñoo dugg ci suñu clé yi suñu ay donné plainte boobu nag day jëm rek ci ñaawlu waaye tamit ñàkk ànd ak parrainage yi nga xam ni ñoom nee nañu matul te ñu jàpp ne dafa am njuuj njaaj ci biir. Aminata Mbaare Sow jaajëfal la soxna Fatou fi lañ koy yemale daloo la lenge yi nga doxal ba ci. jërëjëf Ibou xibaar yi buur na ëllëg incha allah dina dellu siwaat ci ñetteelu numéro bi euh, ñu dem fekk ci Cheikh Diop ci yenn yi ak la ñu xëyee. aywa Cheikh yenn yi ak la ñu xëyee dañu koy doore ak.